مواهب النافع في مدى الشافع moom sirru kun fayakun moo ci nekk sirru fatiha mi ngi ci sirru salaatul fatiha mi ngi ci kim yow salaatul fatiha bi ñu am ñuy nëbb sax mi ngi ci biir mawaahibu naafi te ci OMTV daañ ko ci leeral bu baax a baax insha allah ndax mag ñi duñuy wax ni kun fay kun suñ ko daawoon di tënk du wax baynal kaafi wa nuuni diggante keef géeg nuun gi muy kunu keefu kun gi ak nuunu fay kun bi fay kun rek moo ci des ndax fayuko ak nunu kun bi mu don fayu soko soo daf lay jox 166 te so binde la ilaha illa allah 166 la lay jox kon mag ñi daan ne xaqiqa kun fayakun moy la ilaha illa allah te so wagne bayitu muahib 166 bayit la lay jox ñëpp di daw di wuri di ci sonn lool su doon siis ca la maam Cheikh Ibrahima Fall toog bukki bukki ni koy waxee bukki wiri wiri jaari ndaari rek ku dem soo wëree di nga dellu si foofu ndax laa ilaha illallah foo ko tudde Fall rek lañ ciy wax te moo ci saf yit nag te it faal googu tënku alxuraan la nag ndax faa gi faallu laam gi li ma yurit ndax loolee la suñ borom bi def lu ko sob ci maam Cheikh Ibra moo tax mooy bu yéeme su ne siru latif moo ciy dox ismul baatinu latif mooy muti yaa muti ñëw na ci ñeent yoon ci muwaahib sëñ Xaadim Mbàkke conférencier yal na yàlla yokk leeram wax na ma ni ci biir saalam man ak moom ak yàlla mu ni ma sooy jàngati muwaahibu bu ñëw ba ci indi aqulu wala yamilu li ma li ma yusul ma al ma ni ko mu ni ma da taxaw fas sa soxla mu ni da soxla mu ni ma lu ci topp ma ni ko yaa zal yaa mutaali yaa xayra waali ajib duaa yi mun ma nga def ko li mu kun fayakun mooy 236 nga àggale asdek li gars yi di def premier mais di jël seen doléance di ko yóbbu mun day mel na da nga jël indil ko sëriñ bu mag bi mu nangu ko te fajal la sa aju li moom ko wax ci saalum kon ñu koy wax bu baaxee ko mbokk taalibe yi waaw xasida yi lépp da ci nekk